salaamaaleykum ginnaaw bi ñu leen nuyoo dañuy am mbégte bu baax a baax ci ànd bi nga ànd ak ñun seen première chaîne de la banlieue di IM Télé International Média TV tey nag ñu ñëw ci écrit bu mag mu écrit bi nga xamante ne moom mooy jëf soog a nekk nekk fii ci Kër Massar unité ñu ñëw seet si xale yi nga xamante ne macha allah ñi ngi def lu am am solo ba tax na tey mbokk yi xarit tey seen émission taxaw seetlu dafa ñëw fas yéene leen wan écrit bi nga xamante ne moom mooy jëf soog a nekk xale yi nga xamante ne ñoo fi nekk am talent loolu di def lu am solo si làmb ji li ñuy def rek mbokk yi xarit yi mooy dinañ waxtaan ak ki nga xamante ne moom mooy bi dinañ waxtaan ak également xamante ne ñoom ñooy mbër yi nga xamante ne ñoo fi nekk am combat ñu waxtaan ñoom également ci situation yi nga xamante ni moom lañ gisee làmb ak écrit bi ni nga xamante ne ñoom noonu lay dundee ndaxte gis nañ écrit la xamante ni mën nañu wax ne ay ndaw rek moo fi nekk ba tax na rek ni ñuy xarit yi mooy dañuy waxtaan ak ki nga xamante ne moom mooy président bi di Modou Fall bu ñu waxtaanee ak moom mu wax ñu équipe bi nu muy doxee également seen mbër yi nga xamante ni am nañ combat ñu wax ñu ñoom nan la ñuy préparer combat yi kon Bouna li ñuy def rek mooy dañuy waxtaan ak ki nga xamante ne moom mooy président bi di Modou Fall mu wax ñu tuuti si équipe bi nu muy doxee ak ni ñu nekk ak ni ñuy préparer li nga xamante ne moom mooy seen combat léegi léegi. waaw mbokk yi xarit yi ah, comme ni ma leen ko waxee woon rek si introduction bi ñu ngi taxaw ki nga xamante ne moom mooy ah, le président Modou moom mi nga xamante ne moom mooy écri moom mooy président écrit yi jëf soog nekk ñu waxtaan ak moom rek euh, ci ni nga xamante ni euh, noonu la euh, écrit bi di organisé wu ak seen mbër yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk am combat nan la ñuy préparé seen combat yi nga xamante ni moom moo nekk seen kanam président maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi fay vraiment waa site bi MTV maa leen di ziare di leen dalal jàmm fii ci école de jëf soog a nekk. tey ñu ñëw seet si waa écrit bi. mais buñ ñu fi ñëwee euh, moy gis nañ ay ay ay jeune rek lañ lañ fi fekk tay boo ñuy wax organisation équipe bi nu mu demee. waaw damay profité rek di leen nuyu di leen dalal jàmm te nuyu tamit ñi nga xamante ni mooy waa 100 pour 100 Kër Massar bi yëpp di wax ne vraiment ñëw ngeen seen kër ndax tamit boo xoolee ñu ñëpp Kër Massar lañ nekk ngeen nekk fi tamit vraiment gis xale bu ndaw mu jaral leen ngeen déplacé wu ñëw fekk si ko ba fi nga xamante ne nii fi lañ ñu koy tàggatee pour ngeen xool tamit coono yi mi daj équipe bi nag euh, maanaam. former ay xale moo ko tax a jóg formation nag dafa baax ci doomu aadama moo tax avant ñu def leader ñu former la ba nga xamante ne nii capacité yi jeune war a am ndaw war ko am dinañ ko def ci yow ba nga xamante ne nii nga gàtt nga njool nga rëy comme ni ko nit ñi tàmmee ci mbër boo xoolee ñi fi ëpp ay nit ñu ndaw lañu c'est parce que bëgg-bëgg gi ñu bëgg ci lañ leen téye di leen ko defal en même temps di leen ci tàggataale ba mën leen dugalaat ci société bi bañ am yaakaar ci li nga ne nii moom mooy seen bopp. mais ñu am euh, loo xamante ni président euh, phénomène la boo xamante ni dañ koy gis mu xew ci làmb ji te te te te loolu ñu bëri dañ koy commencé ñaawlu mais am na ñoo xamante ne dañ nañ loolu est-ce que tamit du ñi nga te ñoom ñooy écrit am ñu si part de responsabilité mooy dañuy gis ni léegi supporters yi nga xamante ni yàgg na am ci làmb sax mais léegi da ci raw parce que dañoo gis léegi euh, dañuy gis supporter day yàq mais bu yàqee xëy na mbër mi sax moom du yëg comprendre nga mais toujours sanction buy am ci mbër mi la ñuy la ñuy la ñuy sanctionné est-ce que jotul tamit. mbër yi ak supporters yi comprendre nga ñuy waxtaan seen biir balaa ñoo dem stade su ko defee comme ñoom xam nañ ni sanction bu amee ci kaw mbëri bi lay lay lay tegu est-ce que jotul mbëri commencé jël seen responsabilité. waaw loolu def nañ ko mais du ko teg ci kaw mbër sa pas normal parce que boo xoolee làmb ji dañ ko teg ay règles teg ko ci ay textes bépp mbër bu ñu sanctionné c'est parce que sa supporter dafa yàq loolu benn comité discipline du ko nangu ndax football du réew. règlement bi dafa ne carrément personne identifiée lañ mën a teg sanction supporter kenn mënu ko identifier mbër bi ne ci biir géew bi di bëre supporter nekk ci kaw di ko supporter amaana sa bëgg ko bu yàqee sees ñu aj mbër bi loolu fan la am loolu du ba amul ci benn sport personne identifiée nangu naa cummi kaayam ñi ñu ñi nga xamante ne nii ñoom lañ sélectionné bu ñu defee sa naka su noonu ñu sanctionné équipe bi sanctionné mbër bi parce que waa équipe sax la ñuy ko nangu naa mber bi ci biir géew bi su defee naka su dul noonu ci biir làmb ji su defee naka su mais en dehors de terrain nekk ci kaw tribune yi foofu sécurité moo war a gérer loolu. maa ngi ci wu sama xarit sama doomu nday paate mu dal ko muy li métti di ci massawu sama idole Djily Wade manager bu mag bi nekk ARS di nuyuwaale sama président Malick ñu ngi président ARS association école de lutte Sénégal yëpp école ak équipe yëpp seen association mi ARS. père Baytiir père Cheikh Tidiane Diakhaté sama tonton góor ñooñu ñëpp maa ngi leen di nuyuwaale di wax ne ñooñu mbir dal seen kaw yëpp maa koy métti lu ànd ceeg ñoom di wax ne dañ leen teg ay sanction mais loolu dinañ ko teg gi nu mu gën a gaawee parce que loolu du yoon loolu ñun ñu ko garanté koo ko diggee tamit waxoo lu am donte nag war nañ éduquer suñuy mbër ba bu ñu waxtaan ak seen i supporters mais supporters moom mën na jógee ba foog nga léemi ñëw di la supporter euh, bu ñu ñëwee bu ñu ñëwee ci ci ci ci écrit bi parce que écrit bi tey su mën nga est-ce que nga ñu wax écrit bi organisation bi fii ni muy demee waaw fii nag moom am na différence bu rëy rëy rëy ak yeneen équipe yi euh, ndax fii ci ordre ngay dox am naa yaakaar ne ñëw tëboo leen rek ñëw boy bi ne leen ñëw leen jël ma am na fu mu jaar am na mbëri ngeen doon jël dañ doon jël ñëw leen mais fii dafa am ñu joxe ordre télé bu fi ñëw ak bu fi du ñëw bi ma laajtee renseignement ñu ñeen Kër Massar ngeen dëkk dèjà loolu rek dafa neex et puis xale bu ndaw bu toll nii ngeen di jóg en gis talaam ngeen tax ngeen jël ko

bu ñu xoolee ñi nga xamante ne ñoom ñoo fay nekk ñi fa nekk VIP yi boo xoolee ñooñu mën nañu wax ñoom ñoo fay def lu leen neex ñoo fay bum ñoo fay bumi parce que xëy na peut-être ñoom ñoo yor millions yi. est-ce que est-ce que est-ce que boo xamante ne dafa boo benn loo xamante ni bu ko bu ko bu ko wàccee ay sanctions dina des est-ce que loolu dalul dalul amul fii parce que fii moom boo xoolee boo feebaree sax da ngay ne damaa feebar mënu ñaaw ñëw liggéey bu la empêché tamit di nga woo coach bi nga xamante ne moom moo fi nekk parce que si nga kay toog ne listam képp ku fi ñëw mooy xool heure nga ñëw mu name ko bu dee lundi la mu ñëw képp ku ñëw joxe sax li nga war a cotiser dugg entraîné yaa may dégg bu fekkee da nga nekk si ngant da ngay woote ne dama nekk si ngant 18 heures moom bépp mbir mu fekkul si terrain boo ñëwee da ngay dem toog si saan comme ñëpp te soo ko tegalee une semaine dinañ laaj loolu moo fi am quoi. tey ngeen am ñaari euh, boo yoo xam ne dañoo am combat. non xam nga presque ñëpp am combat. ñëpp ñëpp léegi yéen léegi yéen seen combat yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk seen kanam nañ ngeen koy préparé parce que xam na ni mbër bu ndaw dafa dafa combat yu ndaw ñoo gën a metti xam nga peut-être liñ leen di fay xëy na du bëri xam nga te bu ñu xoolee li ñuy dépense moom mooy mooy ëpp sax en général liñ leen di fay. nan ngeen di nan ngeen di seen mbër yi nga xamante ne ñoo fi am combat. comme rek euh, mbër bi su amee combat moom li ëpp solo ci moom mooy nga tàggat ko ci li nga xamante ni mooy yar ndax kuy xeexi buñ la seetaanee boo demee di nga ëpp te xeex bi nga xeex dañ ko réglementé am na foo xam ne war a fa am na noo war a comporter ak arbitre war nga sóoraale leen temps ngay bëreel war nga xam ne li ngay bëri tamit dafa am ay règle du lu la neex ngay def ba tax na bala ngay am combat sax foog nga teg la comme ni ngay taree leçon ngay tari ñu lay def ay test di xool ndax xam nga règlement boo xoolee booy bi fi nekk am na fi 10 ans. te moom boo xoolee atam parce que matagul vingt vingt ans wala ci la yem vingt trois ans kon yàgg na fi ngi soog am combat muy premier combat boo xoolee duñ jël ren trois boy yoo xamante ne nii dañ fi yaroo juddoo fi depuis treize ans ñu ngi fi dix ans muy ku mel ni Boy 2 muy ku mel ni Badji mu jinne bu ndaw ku mel ni Asib hmm? ñun ñëpp boo xoolee dañuy bokk ci suñuy test tey phase test yooyu nag boo koy def ñaare risque la parce que xale bi lu mu mën a mën a bëre boo ko yóbbu premier combat mu bëre dafay am tuuti différence ak mbër bi nga xam ne miin na fa. léegi nag moo tax fu ni toll nii combat yi leen benn temps di leen di jël di leen ci kër yi di xool ci li nekk. di leen tegal ay combat ñu seetaan di leen def lu ne formé nañ leen si terrain parce que ne nañ leen yóbbu biir géew ñu xool kon yaakaar naa bu ñu demee day moo tax tamit vraiment ñun dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax parce que li ñu yor nii ñoo ko defaral suñu bopp. amuñu problème comme yeneen ñi gars yi am parce que fi amul VIP écrit bi dafa am logo yaakaar naa ne képp ku fi nekk. loolu mooy bëre mbër bi turam mooy bëre mais lii présenté wu mooy écrit bi ak école bi mooy jëf soog a nekk jëf soog a nekk boo solee maillot si terrain bi moomatoo sa bopp da naan defal lii waxal lii daanu kontaan daan kontaan ñun loolu ñu dundee quoi. mais question bi nga xamante ne moom lay tëjee est-ce dañuy dégg mbër yu bëri ñu naan dañuy am problème jàppale parce que dañuy gis mbër yu bëri seen maire yi xam nga wala ñi nga xam te ñoom ñoo fa nekk ay responsable dañuy ñëw di leen di leen accompagner seen i combat parce que xam na ne làmb dafa metti est-ce que tey euh, jëf soog a nekk euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, monsieur le maire Moustapha Mbengue est-ce que soo leen amee combat mi ngi leen di jàppale waaw maa ngi profité encore di ko nuyu en tant que premier ambassade bu Kër Massar vraiment di ko wax ne na xoolaat boppam xoolaat entourage am amuñu lenn luñ koy meree jàmbaar la bëgg na liggéey mais bu mu fàttali ko fan fee la toogoon 2015 xamoon li na ci écrit bi bokk ñi fondement écrit bi moom li tuddee ko drapeau 2007 foo xam ne 2007 booba Macky Sall xaatul woon sax dina génn biir euh, li nga xamante ni moom mooy PDS booba moom mu nekk conseil ci maire bi nekk jàmbaar ñu bokk ak moom liggéey di daje ak moom mi mbëkkante mu doon ko gore ku bëggoon affaire yi mais falu day changer jikko ndax doom adam bi fek amul ñu xam jikko mi ngi gor gor lu me dafa ñàkkal de jeunesse bu keur Massar waxuma mu jàppale def Soga nek waxuma dama bëgg mu jàppale équipe keur Massar yi nek yëpp situation yi mu wara a joxe mu diko joxe comme nima ko waxé suñu conférence presse barki Demba Ndiaye awma ma politicien bu may ngemb wala ku may ngembul lamb moy sama politique moy sama parti lamb la jàppal su keur Massar équipe bi kasse kasse kasse taxul may wax équipe keur Massar yi mbeurep dañu am ci ñun yaakaar ñu nek ci 20 ans di ci xoslu yàlla defal nañ ñun suñu carrière jeex na mais dañu yor ay booy ñu yaakaar kon ba léegi ñu ngi si biir làmb kon lu ñuy défendre rek te làmb taxul amul njariñ te li làmb laaj dafa jàppale Kër Massar moo gën a ci communes yi dem bañ naan département benn maire dongul ne fi budget Kër Massar kenn xamul toll lépp ngi fi Kër Massar dara manqué wu fi mbër bi bëri Kër Massar xaatoo dem ci monsieur le maire ne ko may ma benn kaar wala may ma ay loolu dafa ñaaw te ñun ñu nekk dëkk bu rëy lépp daw wàll sa fi ñu war am maire bu dëgër maire boo xamante ne day mel ni Bamba Fall dama koy wax maire nañ toppandoo Barthélémy Dias ak Bamba Fall man maire socialiste dañ maa neex parce que dañuy dugg seen biir gox ñi ñi mee leen ñu xam leen mais maire yoo xamante ne nii bu ñu xasee ba faru seen i jabar rek nga xam fu ñuy fanaan ñoom rek ñoo xam fu ñu dëkk maire yoo xamante nii boo demee leen seet ñu nekkuñ seen kër ñun politique ñu li ñu bëgg mooy booy jeunesse bi dañ ci am part dañ ne Macky Sall dana yëg naa sama jeunesse appel bi ñu ma def kon na gars yi liggéey Macky Sall deful dara jàmbaar la def na li mu war a def yëpp mais ay maire la yoo xamante ne nii nguur da leen a tiital ay naagu dañoo naagu te ku naagu daagu te ku dagu ñu romb la buñ la fa nga lek bu su da ngay waccat wàccaat boo wàccaatee yàgg citoyen simple bi nek ci ci tekk bi rek yam kon def fa lu rafet ndax ku def lu rafet mu law waaw dañuy profité ndax tay mairie yi gaay gaa koy wax seen waa koy wax man damay nek ak ay wa nit ñi dekk yembal mais yembal am na ay maire mais Bara Gaye la fay dégg ñu day jappale nit ñi pourtant ñam ñoom jàppale mënuñu sax 10 personnes mais dañ fa def lim meun mo tax dañ koy wax waaw Moustapha mbeng namu don campagne ñëpp naw ko ci ngorom boobu na ko continuer am na ñu muy dimbali mais na dem fi nga xamante ne nii fa la mbiri ëppee doole ay say boo mu ne kenn dama si façonné man loolu rek laa wax mais aw ma benn politicien bu yaakaar ci àdduna di nga ñëw wéeru sama ginnaaw ma ànd ak yow yaa ngi nax sa bopp képp ku bëgg ma ànd ak yow na nga ànd ak jeunesse bi ndax man du ma meer du ma dara te chaque combat booy booy dina jot ba ma junni sax naa ko may te pourtant yor ma dara xëy na su ma nekkoon meer sax may gën a bon Tapha parce que nguur mooy def noonu nit mais li ma koy ñaan en tant que nitam nitu démbam na gestuwaat écurie Keur Massar te xam ne bu ci amul ndam du ci am gàcce loolu rek laa am mais ñaaw na trop ñuy yàq sa koñ yow maire bi nga daw nëbbutu man su ma nekkoon maire ay nit daw di attaqué samay sama sama sama sama dëkk barke Seydina Muhammad su ma ñëmul génn sama kër ma démissionné nii nii nii bi bu demee ba ay nit di ma boo yu mbëri taxaw di ma seetaan ma

écrit boo dem amul ay gars fii li fi ne ci ay gars ñoo ko jënd kenn amul benn soutien Covid ñëw fi ñun ñëpp ñu nekk ci ay problème ñu subventionné ay écuries ay promoteur bay écuries ak écoles yi te ñun am nañ mbër bu ci war a bëre muy Paul bu daaru promoteur bi mi ngi may dégg bu yaakaaree ne am na combat mi ngi nax boppam suñu joxaatul xaalis ñun duñ dem bëri ci parce que jox nañ ko xaalis. ban promoteur moo ko tëgg. Champ Production ñun jàpp nañ ne ñu ngi entraînement ñu war. parce que ñun combat dañuy entraîné ak combat dañuy entraîné rus nañ torop Abdoulaye Ndiaye ndax gor pire la. rus nañ torop Matar Ndiaye ndax gor pire la mais ñi wax promoteur bi dégg na def signature contrat mercredi samedi bii di ñëw na noppal boppam suñ tànk dafa tegu. ndax amuñu benn contrat bu ñu lié ak moom ci ay signature contrat signé wuñu ak moom benn sponsor bu ñu war a sol signé wuñu ak moom dara combat lañ séq ak moom te bu ñu dem bu ñu dem te ñu dem moo ko régularisé mais séquñu moom benn taraanga ci laamu na.

ñu ngi entraîné nag mais suñu joxul dara bu mu ni ñu dem signature contrat am kon euh, mbokk yi xarit yi dégg ngeen euh, mu nekk kàddu yi nga xamante ni ah ki nga xamante ni moom mooy président Modou Fall moom la wax mën naa wax ni surtout nag kilifa yi nga xamante ni mi ngi leen koy wax parce que làmb dafa metti kon mbër yi nga xamante ni tey ñoom ñooy nekk si gox gi yow mi nga xamante ni yow yaa fa teewal waa gox gi rafet na ngay taxaw waa gox bi ndax te yaar naa bu ñu génnee di dem turu gox bi la ñuy demee kon loolu dina dina am solo lool yow mi nga xam te yaa fa ne yaa leen représenté euh, nga leen nga leen taxaw li ñuy def rek euh, mbokk yi xar ji waaw waaw waaw. waaw ma bëgg a profité rek xam nga tamit comme que ñoo ngi jël xam nga lii nii ñoo ñu jàppale tey Africa Pub tey di profité di gë di nuyu directeur bi Youssou Seck di nuyuwaale waa agence immobilier caabi ndax ñun amuñu benn politicien bu ñuy jàppale ay. chef d' entreprise ñoo jël seen i seen i bagage diñu ko jàppale rawatina Africa Pip bépp mbër buy bëree dina yëkkati saa yu saison bi moom du jàppale mbër équipe la jàppale lépp lu ñu soxla ci ay mayo mu defar ah lu ñu soxla ci ay tiset mu defar lu ñu soxla ci tirage basse mu defar yëkkati xaalisam du ñu ko jox bee mbër bu ñëwee muy jënd ci loolu tamit dañ koy félicité di koy ñaanal euh, li muy liggéey yàlla gën koy yokk ci kaw muy directeur yu sec nekk Africa Pip di gërëm directeur bi nekk tamit Kër Massar muy wan di gërëm mboolem employé fa nekk di fa liggéey di wax ne yeneen sociétés yi nekk Kër Massar moo xam Brioche Dorée bi la moo xam ku mu mën a doon Kër Massar dafa am ay acteurs yu fi nekk nañ wàcc ci terrain bi xamante ñoom jàppale leen ndax tamit jàppale sa jeunesse réew mooy jàmm te jàmm su amee rek xoolal lu waay jaay mu jar jërë ngeen jëf. jërëjëf kon mbokk yi xarit yi ah, gis ngeen mu nekkoon kàddu ki nga xamante ne moom mooy euh, ah président bi muy euh, Modou Fall dégg ngeen kàddu yu am solo yi nga xamante ni moom la wax. waaye ñu ngi euh, taxawaat ak ki nga xamante ne moom mooy euh, Boy 2 ah Boy 2 nekk bokk ci xale yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci écrit bi ndaxte président wax na ko léegi bi muy soog a dugg ci écrit bi xale bu ndaw la woon mu nekk ci écrit bi di dem di dem di dem ba yàlla def mu mat a dugg arène ñu koy taxaw di ko préparé nag ndaxte mi ngi préparé combat waaye balaa ñoo waxtaan ak moom ci combat bi nag ni ñuy def rek mooy dañ koy bàyyi mu nuyu supporter am yi koy seetaan ak internet wu IMTEL boo dee ñu ngi leen nuyu di la ziar. maa leen fay bu baax a a baax waaw di ñëpp rek di waa école bi xam nga di santaat samay supporter waaw di santaat ay kër si ñoom mut booy ñoom maseer maa ngi di bu baax a baax ñoom abusey ñoom seddo maa ngi di sant ñoom am ñëpp kulukum daal waa daa misel tamit di sant waaw laa mi taxee ba léegi danoo jàpp bàyyiwuñ xam nga di san sama gaab ñom buuba gaab ma ngi leen daal tam baaw ma kenn daal dal misal ma ngi sant kulukum dal ñop jaap ci lamb ci xam ñew ñëw ma ama suñu borom defal ma ndam ndax xam ndaw la tamit dañuy jaante rek waaw tey eh, ki nga xamantene mom moy eh, prezi dañu deg leg mu wax ni sa jaar-jaar ak ak ak ak école bi dafa yag lool tay bo nekké ndaw nga nga nga teel a dugg ci école bi yalla def ngay dem di dem di dem ba yàlla tudd fi sa premier combat fi fi nga xamante ne fi lan la formé fi nga ko defee actuellement nii ci ban état d'esprit nga nekk. waaw instant moom mooy loolu maa ngi koy teg lépp ci yoon matinal beeg lépp maa ngi entraîné instant yi di teg ko si yoon waaw di xaar nag lundi la làmb ji waaw boobaa nag li ma liggéey ma wane ko foofu noonu. yow kan ngay bëreel. man Remzi laay bëreel rek Baye Ndiaga laay bëreel waaw. tey est-ce que bi nga bi nga commencé nekk ci bi ak léegi euh, est que Euh, bi nga jëlee combat léegi ci entraînement yi ci lekk bi ci récupération bi est-ce que am na lu changé. non échange moom lépp nice ndax tamit dama am ñoo xam may jàppale sama ginnaaw ñu si mel ñoom Tam ñoom Bouba ñoom ñëpp dañu may jàppale ñoom Umar gars yi ñoom Paa xam na li ma la wax dañu may jàppale sama waa gaale maire ñëpp dañ siy jàpp ñu mel ne ñoom Ndeye Ngom ñoom maire Baar Ba ñoom maire Xawa ñëpp dañ siy jàpp ak paa bi sama waa gaal ñëpp dañ siy jàpp gaan mooy loolu ci làmb ji xam nga di sant ñëpp daal échange bi a ñoom Paa ñoom Aminta ñoom ñu ngi jàpp ci làmb ji

nga jaay ko pour mën a préparer sa combat est-ce que loolu problème yooyu doo leen koy am. waa xam rek yoon moom boo day bay métti yoonu ndaw moom moo mel noonu xam nga mënul xëy rek neex day métti ay ñoom mos a mais tamit dafa mbeng ñoom jàppale wu ñu daal ñun ñu ngi jàppale suñu bopp. instant boo demee nag ba nekk ci kaw ñoom ñëpp ci la ñuy door ñëw man wax dëgg fa yàlla laamu ji moom am naa samay gars yoo xam ne dañ ciy jàpp bu baax a baax a baax sama bolak billet bi mu ñëwee ba léegi ñoom ñëpp ku ne da ngaa jël billet ku ne da mu jeex tàkk daanaka li des bëreetul loolu la xam nga mooy loolu tamit. Boy 2 kan mooy référence am ci làmb ji. man mooy loolu sama waa écurie ñoom liir bu dof ñooy samay référence ñun mooy loolu ndax école moom ñëpp ay champion lañ ay bu ndaw ñoom bém ñoom ay champion ñoom nekk fii nii ay asib ñooñu ñoom mooy loolu boo nekkee ñoom waroo mën a tiit dara mooy loolu. non soo déggee ma la soo jógee actuellement ni am na mbër boo xam te yaa ngi yaa ngi rêvé pour bëre moom ci ñi nga xamante ñom ñoo nekk ci kaw parce que dañuy faral di dégg yeen yeen yeen mbër yi mbër yu ndaw yi naan parfois nga daan adversaire naan non ki xoluma ki diw lay xol kan nga yaakaar ni man ngay mom ngay rêve le pour ñëpp war la war la war la wër nga war a bëre ak mom wa ñun état yi ñaan nañ yàlla bëreeg sa ñom Ama ba lé ñaan nañ yalla sa way ki nga laal sa way ki nga laal graw na dé non du question xam nga ñoom ñun dañuy seetaan seen photo dañuy seetaan seen vidéo ñom comme ñun lañ tollon mais mbaa mbaa xiir bi dula dal daal non xiir mënu maa dal ndax fima juro la man daaru mi sen la juro ci indien yi foofu ragal dogu fa xam nga mooy loolu di santaat waa Remina bi bu baax baax baax gaay yi. Eh, mbër mbër xam naa soo ma gisee xam naa nag di nga ree booy bi nee na <laughs> ama booy bi nee na day ñëw sa kaw de. <laughs> waaw noonu la demee état yi moom ah, ñun moom li gars di def si ñun xam nga rek mooy loolu noonu kuy contact ay ñoom Paul xam nga mooy ñoom bébé tonnerre gars yi ne ay ñoom guy gee gars yooyu yëpp yaakaar naa tamit mbër waru laa mën a jaaxal xam nga mooy loolu noonu ñun état yi moo tax dañuy liggéey ñun lijjanti wuñ li keneen liggéey xam nga ñun lu ñu liggéey ak suñuy supporters ñu ñuy jàppale ñun loolu lañ lijjanti état yi ba ja instant nag làmb moom kuñ kuñ mënta daan amul instant nii nii nii kuñ mënta daan amul waaw te bés boobu noonu abada si lépp di leer bu neexee suñu borom. ma bàyyi la nga woote après nga teg waa instant moom damay woo xam rek waa daar Missel man ndax man da aw ma lenn man daar Missel laa am ak Kër Massar ak sama waa village laa am man ñooñu noonu laa am Darou Missel laa am ak sama waa village ak Yëmbal sama gaal sama tànta sama mag yu jigéen laa am ñoom sukey sama rax yi ñoom saabe man ñooñu noonu laa am ak sama waa ñoom ndayngam ñoom mère ba ñooñu laa am koñ ba ak xam nga paa bu baax paa bu jaw bu baax maa ngi koy santaat bu wér ak alsaan cubu ñooñu maa ngi di sant sama waa gaale baa ma kenn tuut tànk yi ñoom sala yi ñoom dugub booy maa ngi di sant kulukum booy baa ma kenn daal daal misel tamit ma kenn ba cet rëbina ma maa ngi di sant waare pm maa ngi di sant xam nga ay ba maa ngi di sant a a baax booba la ñu di leen bu wér di santaat salaam ndax maa moom xam nga rek yàgg nañ depuis bi nekkee tout tànk ba léegi xam nga mu nekk tamit xam nga moom ci affaire xam nga rab ñu ko si ñaanal yàlla mu jëmale ko ci kanam ak kanam bañ koy dégg fu sori fi ñuy dégg ay ñoom dib gaay yëpp ñu ko fay dégg ndax suñu borom mën na lool di koy def bu suñu borom kon euh, mbokk yi ah, mu nekkoon ki nga xamante ne moom mooy ah, Boy 2 di préparer combat am tey ñu ñëwoon ci écrit bi nga xamante ne moom mooy jëf soog nekk li ñuy mën a jàpp nag ci mbokk yi kàddu yi nga xamante ne moom moo fi jib muy kàddu yi nga xamante ne moom la président bi wax muy kàddu yoo xamante ni ku ko dégg rek dina la xaw a tuuse dina la xaw a tuuse ndaxte en général dañuy wax autorité yi nga xamante ñoom ñoo nekk si localité yi tey bu élection amee ñoom dañuy jug pour population bi jàppale leen mais bu population bi xewlee boo nekkul service célébrité pour ñu jàppale la day xaw a met te loolu day nekk loo xamante ni vraiment lu ñuy ñaawlu la parce que kàddu yi nga xamante ni tey moom la fi président bi wax kàddu la yoo xamante ni li ñuy wax rek mooy ki nga xam te ne moom mooy monsieur le maire mu gesuwaat ñi nga xam te ñoom ñooy écrits yi nga xam te ñoom ñoo nekk biir Kër Massar ndaxte doomu Kër Massar bu génn biir Kër Massar boo demee Kër Massar ngay représenté te yaa naa doomu Kër Massar bu am ndam moom moo war a njëkk am moom la fi moom la yàlla si bàyyiwaat ki nga xamante ne moom mooy Boy ah ñi ngi wax ki nga xam te moom mooy Djiné moom également aussi tamit dafa am combat li ñu def rek mooy dañ koy woo mu ñëw mu am lu ndaw lu mu wax rek su ko defee ñu ñu ñu ñu tëj Djiné maa ngi lay ziar. delloo ziar bu baax grand. ah dafa mel ni yaa ngi préparé sa combat de. waaw bu baax a baax. foo tool ci entraînement yi. liggéey rek deux séances pour l'instant. kan ngay kan kan kan ngay bëreel. Euh, benn booy xaw ma ko sax caatu ngor lañ ma wax daal. mais est ce que euh, est ce que loolu parfois du nekk risque si ci mbër comme exemple tey ñu jox la mbër boo xamante ni mosoo ko gis peut parfois nga dem nga dem nga jàkkaaram mu nekk koo xam ne ngay génn si àll bi di bëreeg ñoo xam ne mosoo leen teg bët te catégorie bu nekk la te loolu moo tax ñu mu ngay bëreel kon arrêt bu ñu la joxee sa premier combat même boo ko xamul mun ngaa gëm ne di daan incha allahu rabbi kon actuellement ni état d' tout est ok mais si côté jàppale bi parce que en général bu ñu waxee mbëru ndaw yi mbëri ndaw ñëpp xam nañ sax dañuy entraîner mais parfois côté jàppale bi fa la ñuy amee problème est-ce que si côté jàppale bi actuellement tout est ok. waxoon naa ko sama interview bi passé Esat Kër Massar mbëri amuñu jàppale maire bi fi nekk maire de Kër Massar pour nga teg ko bët day jafe yow boo waxee kañ nga ko gëj a gis yàgg na kon kooku gisul jeunes yi sax ba leen di jàppale te ñun làmb rek lañ am làmb lañuy def. bu ñu neexoon dañuy dem jël arme dem feneen di def ñaaw téef wala affaire yooyu mais defuñu ko wala ñuy dem di jaay ay dorog yooyu suñu liggéey lañ am ak làmb mais pour nga am sax benn autorité bu ñëw volontaire jàppale la si ay cas sax nit dem sax day jafe kon ñun Kër Massar amuñu benn suñu si maanaam suñu maire ñun gis ñu ko si benn côté pour mu jàppale ñu am ñu koy dingat ak loolu mais loolu c'est vrai dafa am c'est parce que jàppale wuñu bu ñu jàppale woon làmmiñ waxul dëgg wax fenn kon dañuy wax dëgg ne carrément suñu maire bu benn auto lay jàppale mais am nañ ko ñoo xam ne yor ñu benn ndombal tànk mais dañ li ñu jàppale bu baax ku si mel ni Papa Sall maire Dieynaba Ndiaye yaa ngi dégg Idi Wele xam nga ñeen ak ñeen ak Modou Fall nga xam ñoo fi nekk di jël seen propre moyen dañ ko dimbalee te xamuñu sax ndax loolu ñun bu ñu si jëriñoo ëllëg ñoom ndax dinañ si lekk voilà noonu la tey euh, ngay ngay ngay ngay préparé jàkkaarloo ki caméra bi tey euh, ngay préparé komba tey euh, président wax na ko léegi ngeen nekk ay jeunes yi nga xamante ni équipe bi dañoo am ci yéen yaakaar tey actuellement nii est-ce que entraînement yi ni ngeen ko doon defee am na changement yi si am mu si côté lekk muy si côté côté ñaan ndaxte xam na mbër bu ndaw liñ lay fay li nga si dépense mooy ëpp fuuf parce que combat yu ndaw moo demee noonu est-ce que doo leen am côté problème si côté finance mm. ak supporters yooyu yëpp si am problème. waaw financement da nga si am problème parce que mbër dafa war di fay saal buy ñëw entraînement war naa lekk xam nga war naa def yeneen ak yeneen besoin social yeneen ak yeneen yaa ngi gis ak voyage yi mais doo ko parce que problème de moyen te li ñu lay fay yàlla xam ne di nga si def lu ëpp loolu lu ëpp loolu ko def si làmb yi ngir lan bëgg bëre xam nga 100000 bu nekk. ëllëg ngay ñaan yàlla mu doon cent millions balaa ngaa bàyyi voilà moo waral boobu jaayante yëpp sacrifice sa life yëpp ngir làmb kon da ngay gëm ne dama siy réussir force ngir man su ma essayé damay essayé ay personne sama ginnaaw te ñooñu ci man lañ yaakaar te waruma essayé kon ndax ñooñu xam nga sama essayé seen essayé la voilà noonu la demee waaw. ma baale rek nga nga nga nga nuyu sa mbokk yi ak ñi nga xamante ñoo lay jàppale. waaw maa ngi nuyu waa Darou Missel yëpp Darou Missel bàyyiwuma fenn bëri na ay arrêt bëri na ay jataay mais ñëpp benn lañ parce yow sama waayu waay nga kon dañuy xamante nice yaa ngi gis daal misal ñëpp maa leen di sant di baax di leen woo sama combat bi xam nga le 2 juin yàlla defal ma ndam parce que mooy sama première sortie di woo waa Kër Massar yëpp 100 pour cent Kër Massar bàyyiwuma kenn maa ngi woo ñëpp ñu ñëw jàpp si parce que xale laa dama nekk si yoon yaa ngi dégg kon maa ngi wax ñëpp ñëw teg ma loxo si kàttanu yàlla di jaale sama benn xarit xam nga di ko ñaanal xam nga lox ni yàlla xere ko àjjana yàlla yërëm ko ndax fii la nekkoon di préparé ak ñun te lu am da siy sonn xam nga suñu bés mooy bésam yàlla jël ko muy Moustapha maa ngi kay ñaanal bu baax fi mu tëdd xam nga yàlla na ko suuf sedd si kawam yàlla na ko yàlla xere àjjana bu baax a baax di nuyu boo yële nee toog ñee xam nga dañuy sonn si man xam nga den temps yëpp dañ koy bàyyi ndax man di jël seen xaalis di ko def si man te bu leen neexoon seen avenir rek la ñuy xool jël ñuy ànd man mais dañuy ànd ndax xam la ay jéngumaan la ay jàppalekat lañ ndax xam nga ndaw bu nekkee si lu baax di si dox jàppale ko bu ko découragé loo ngir kii def lu ñaaw mën a rëtu féewu te ñun équipe bi sax ñun noonu la demee woon kii da doon tànn ñi nga xam ne dañuy def ay ñaawteef di def leen mu jël leen di leen defar def leen ay sportif moo waral équipe bii nii avant làmb ak yooyu noonu yar lañ doon jàngal fi ak yeneen bañ doon mbër kon ñoo ngi ko siy sant bu baax moom Modou Fall Abou Seye Seddo Maser Issa Pouy Idi sama mag am duri sama doom day maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bu baax a baax di wax nag na ñëpp ñëw jàpp si booy yi maa ngi teg nuyoo bi si ñoom Adama Zidane 100 pour 100 bi booy jinne bi maa leen diwoo bu baax nuyu sama mag papa booy jinne yàlla defal ko jàmm ndéegay maa ngi koy nuyu bu baax a ñaan yàlla sëy bi yàgg waaw noo la demee. Mhm. kon euh, mbokk yi xarit ya ah, gis ngeen mu nekkoon euh, ki nga xamante ni moom mooy Boy Djiné yaakaar na kàddu yi benn la ndaxte bu ñu xoolee ki nga xamante ne moom mooy président Modou Fall li mu wax daanaka mën nañu wax ni mbër yi nga xamante ne moom lañ fi taxaw ñi fi taxaw wax même chose lañ wax.